état bu parrainage bi bëri woon na suspicion. nit ñi amoon nañ ci ay xalaat wax nañ ci lu bëri ñu jàppoon ne duñ ko jàll. yàlla dogal na tey ndax xarañteefu ñi nekk ci coalition bi mooy les coordonnateurs régionaux les militants ak ñëpp ñi nga xam ni jàpp nañ ni Mame Boye Diao projet bi mu proposé c'est projet alternatif pour le Sénégal. jàpp nañ ci ba ñu jàll parrainage bi ñu koy sant yàlla di gërëm mboolem militant ak sympathisant yu coalition Diao 2024. pour dire que rek coalition bi dafa élaborer stratégie depuis bu ñu ko sampee ba tey parce que jàpp naa ni yéen ñëpp seetaan ngeen ni Mame Boye bu mu déclarer sa candidature ay fan lañu ci teg mu fësal ci kanamu Sénégal yëpp gis-gis ak programme bu mu am pour Sénégal ci benn téere bu ñu duppee le Sénégal qui vient donc loolu yëpp dafa tegu ci organisation ak méthode donc tey bi ñu jàllee parrainage bi ñu def évaluation bi waxtaan ak ñëpp étape bi ñu desee mooy programme boobu ak projet boobu nan lañ ci mën a wax ak sénégalais ba sénégalais yi jàpp ni lii ay solution la yu mën a régler seen ay problème ci loolu lañu nekk ñu ngi ci massification densification ak élargissement des bases de la coalition pour partager ak sénégalais yi gis-gis ak projet bi nga xamante ni coalition bi bëgg nañ ko déggtal sénégalais yi ngir que bu ñu àggee ci jongante bi sénégalais yi wóolu suñu candidat fal ko au soir du 25 février 2024. Très bien. Quel dañuy ñëw rek si loolu mu wax léegi fi mu daanelee ne euh, xarañteef la et tout euh, déjà voilà une coalition boo xam ne rarement ngay dox ba taseeg moom si terrain bi muy collecter parrainage euh, jékki-jékki rek teel ne am nañu ay parrain mat na alors que am na ñoo xam ne si terrain bi ils ont fait des preuves yu leer avec de indi ay ay ay preuves yoo xam ne dañ leen léser tey ñooñu dund bokk si euh, li nga xam ne moom mooy élection yi ma bëggoon xam ban appréciation la am bon après égratignure boobu noonu par rapport ak euh, euh, Mame Boye Diao bi ñu wax ne candidat système bi la et ñoom ñoo ko c'était évident que day jàll loolu yëpp certainement yëg na ko ban appréciation nga am ci ci ñaar yooyu maanaam Mame Boye Diao kii soupçonne d'être euh, donc euh, propulsé aidé par euh, par le régime ak li nga xam ne moom mooy ñeneen ñu ñu bloqué ci état bu parrainage boobu noonu alors que indi nañu ay preuves ne que ils ont été lésés. Euh, merci xam nga politique aar la taxawaay la gis-gis la gis nga mun nga bëri coow trop nit ñi dala dégg fu ne. fekk peut-être liggéey bi nga war a liggéey liggéeyuloo man ci coalition Mame Boye Diao laa mën a wax peut am na ñu ñu recalé am na ay motifs objectifs yu ñu wax ni bu jaarale woon yoon du ñu leen recalé loolu c'est au niveau de leurs états-majors politiques mais le parrainage en vérité c'est pas une chose simple te c'est un véritable travail de terrain et de rigueur moo lay may nga mun a accéder au nombre qu'il faut ñun ñëw ñu jàll ci première état bu parrainage bi dañu ñëw ñu ne ñu am ngeen ay doublons Mm-hmm. ay doublon ça veut dire que ay parrains yu existé lañ mais dañu nekk ci fichier beneen candidat bu ñu njëkk a jàll ñu war ngeen compléter onze mille et quelques parrains ñu dellu dem Sénégalais yi jóg ànd ci ak engouement bu doy waar di woote partout. bu kenn gisul nag. non xëy na yow gisuloo mais bu fekkee yaa ngi suivre plateforme yi nga xamante ni coalition Diao 2024 dañ ciy communiquer ñëpp gis nañ pendant toute la période de collecte du parrainage ay nit. bàyyeekoo nañ fu nekk ñëw si siège bi di indi ay parrain di wane ni ñoom Mabou jaaw lañ bëgg a jàppale. parrainage bi tamit dama la dafa laaj sérieux parce que bu ñu la waxee ni la soo amee ay doublon mun nañ la éliminer mais yaay fexe ba ni ngay tànn sa parrainage nga organiser wu pour que doublon externe yooyu bañ a bëri. parce que su fekkee def nga liggéey boo xamante ni en fonction des lots de parrain que tu say délégué collecté la ko wala ay nit indil la ko mais war nga liggéey ba régler problème mu doublon externe beneen problème bi c' est le problème du fichier dont on parle le fichier. yéen ci fichier bu baax bi lañ leen non du question fichier bu baax Sénégal 2022 ku dem élection législative am nga fichier ku dem élection législative maintenant de 2022 à 2023 peut-être am na ay nit yoo xam ni consolidé gu ñu leen ci fichier bi mais ñi dem élection ñëpp. non mais justement ñi dem élection ñu ñëw tey ne leen nekkoo leen ci fichier. non dama ni ñi dem élection laa la wax 2000. 2022. boobu laa législative mais ku nekkul ci fichier 2022 bi voté woo te xëy na candidat yooyu boo leen laajee am na ñoo xam ne 2022 ci législative bi nañ moo tax man la xëy na fichier consolidé bii ñu yóbbu conseil constitutionnel di ci xool parrainage yi am na loo xamante ne ay ayib la je dis pas que le fichier il est totalement transparent il est consolidé ñi ci war a nekk yëpp nekk nañ ci. dama ni 2022 am na fichier boo xam ni acteurs politiques yi am nañ. d'accord ñëpp am nañ il faut pas que suspicion yooyu noonu wala xalaat yooyu nit ñi di génne jàpp ni ñun dañu nekk benn candidat boo xamante ni euh, dafa am fu ñu jaare loolu amul parce que ñun suñu candidat dafa tollu jamono boo xam ni Sénégal dafa soxla ay doomam parce que dañu jëm ci benn phase bu cruciale dans l'histoire politique de notre pays à savoir ñu war a tànn benn président boo xam ni président bi jiite woon du bokk suñu candidat jël responsabilité ni dafay am projet am vision am ñu mu àndal présenter sa vision yi nit ñi wóolu ko muy kon ni